Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. waaw tey xam nga réseau population développement de l'Assemblée nationale des parlementaires tey ñoo daje woon pour échanger avec euh, alliance bi nga xamante ni ñooy liggéey ak CMI pour porter. euh, quand même le plaidoyer euh, au niveau de l'Assemblée nationale pour la, la loi CMI mais xam nga bala nga porté benn plaidoyer yi da nga war a xam li si biir et c'est important tey comme ñu ngi waaj def benn euh, atelier de trois jours à sali pour quand même toj article par article xam lan moo nekk si biir euh, loi bi c'est mieux ñu préparer wu quand pour dem si atelier boobu loolu day yombal. la Euh, liggéey bi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu jëm parce que tam xam nga arta euh, euh, loi boo xam ni day def ay plus de quarante cinquante articles ñu ñëw jox la ko une demi journée nga war ko diagnostiquer ñu ni la woote ko des fois day compliqué c'est pour cela vraiment muy liggéey bu am solo voilà loolu tey moo moo moo dajale woon parlementaires yi nga gis importance bi nga xamante ni jox nañ ko ko parce que xam nga ñu ci bëri ay député maire lañu tey ñu ngi demandé à ce que aussi ñu impliqué leen ci en tout cas c'est important pour la population sénégalaise c'est pour cela comme dañuy liggéey loo xamante ni li ci gën a war a taxaw mooy génération future bi alors c'est pour cela il faut ñu diagnostiquer ko ba bu ëllëgee kenn du ñu jam. waaw xam nga dafa am lu am solo loo xamante ni euh, méthode organisationnelle la comme ñu ngi ciy waxtaan euh, te pareeguñu xam naa ni euh, duma ci mën a sori. mais en conclusion lépp bépp décision boo xamante ni quand même l'Assemblée nationale adapté na ko day nekk intérêt wu population yii c'est pas la premier fois ñu di ko def c'est parce que peut-être daawuñu ko médiatiser ce qui est important tey mooy la population sénégalaise xam ni député yi ñu yëg ko ak ñu yëgul ko ñu ngi liggéey parce que tey nee nañu ñu ngi ci vacances mais man depuis 30 juin ak léegi yenduwuma sama kër presque chaque jour que jëfee maa ngi si loo xamante ni eh, pour avancer quand même euh, le bien-être le bien-être des